salaam people mën na nekk ak jàmm dong la dal leen jàmm ci seen podcast mën na nekk tey nag ñi ngi ci capitalu Casamance ñi ngi ci dëkku Aline Sitoé Diatta dëkku suñu gaynde le très regretté Jules François Bocandé yàlla na suuf sedd si kawam dëkku ku mel ni Émile Badiane su ma leen ko waxee xam naa ne seen xel dina dem ci Ziguinchor ñi ngi fii ni Ziguinchor maa ngi ni toog hôtel Kadiandou Magne ci pont bi jàkkaarloog pont Émile Badiane bi di am brise bu garaaw di am vue bu extraordinaire Ziguinchor sama town la nag town bu ma neex la géejoon naa fi depuis defe naa avant Covid bi ah. 31 décembre 2019 fii laa defoon concert bu neex sax mais corona bi moom dafa ñëw stoppé affaire yi su dul woon loolu xam naa ne du ma fi géej mais yàlla dafa def 2022 lañ fi ñëwaat ñu ñëw projet mën na nekk donc comme ni ñu koy defee saa su ne saa ñu ñëwee ci benn région dañuy seet si ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk di fi door waar toogu ñu xaar ñu kenn jàmbaar yi nga xamante ne ñoo fi nekk di liggéey di exploiter potentiel yi nga xamante ne moo nekk ci seen région ñi ngi ak kenn ci ñoom Aliou Sy moom nag mi ngi yëngu ci transformation de produit halieutique Aliou na nga def. maa ngi fi rek yaa ngi ci jàmm yaa ngi lekk sa xaalis bu baax. sant bu baax. <laughs> Aliou est-ce que mën nga ñu wax euh, lan moo la dugal ci liggéey bi nga nekk di def tey. waaw liggéey bi li ma ci dugal mooy dama doon ambila ba benn moment ma dugg ci liggéey jën bi. ma duggee ci liggéey jën bi nag ma gis sama bopp ci liggéey jën bi loolu moo bàyyi ci jën bi ba ngeen fekk ma si nii. Ah, kon avant da nga doon marchand ambulant nga woon di nekk ci mbedd bi lan nga doon jaay. moo doon jaay ay fëgg jaay ay parfum di plastifier ay photo artistes yi nii nga di ko jaay ci loolu laa nekkoon. nan nga def ba dugg ci jën bi. jën bi dama toog benn suur sama benn gaayen bi nga xamante ni dafa nekkoon si jën yi. fekk boobu moom ay trois heures lay xëy si jën yi man nag sept heures lay xëy mu ne pourtant yow mën nga bokk ci liggéey bi ñuy def de ma ko ah mu ne ma waaw mu ne ma kaay dem loolu moo ma dugal si liggéey boobu noonu ma jàpp liggéey boobu ba benn moment mënatuma boole ñaari liggéey ma gis ne bii moo gën a am importance ma bàyyi ko tofu bii nii. bi nga ci doogee dugg lan nga doon def da nga doon mool nga woon wala da nga doon bàyyi mool yi ñëw nga jënd jën di jaay. oto yi nga xamante ni dañuy transporter jën bi mu jógee ko ci tefes yi di indi fi muy jën bu tooy bi ci loolu laa doon liggéey ba à la nag ma nekk ci loolu ba jën bu bi benn moment xam nga doxatul ma ko dem ci géej bi ma gis ne géej gi moom moo gën a am avantage jën bu tooy ndax jën bu tooy boo amul glace rek day yàqu géej nag moom boo ko xasee xorom rek mun na diiri lu yàgg avantage boobu ñu nekk si ba kon géej mën nañ ko denc même ci boo amul frigo wala amoo congélateur. oui denc bi mën na yàgg. carrément bay ñaata temps yooyu. ba ay six mois trois mois. Hmm. waaw loolu mën na nekk. ok léegi kon liggéey bi nan lay demee. gars yi dañuy dem ñëw nga jënd ci ñoom wala yow sa bopp yaay investir am say mool yoo xam ne. waaw dañuy financé ay gaal. Mhm. ñu dem géej après bu ñu ñëwee. triage bi nga xamante ni moom leen trier jën bi ndax jën bi day am trois triage. benn bi marché lay dem mooy bu xaw a bi beneen bi dañ koy transporter mu dem Dakar boo mën na am ay mois ci glace ñu koy transporter muy dem fu nekk li nga xamante ni nag moom mënul dem fenn moom la ñuy def xorom bi ñu géej ko. man hmm. lay di demee quoi. kon géej bi man dama foogoon ne dafa am benn race spéciale. bu ñuy def géej mais ça dépend rek ci jën bi état bu mu nekk. oui état bu mu nekk ko jaay nu mel. wala munoo ko denc lu yàgg. carrément nga def ko géej. noonu la affaire bi demee loolu moo tax importance boobu noonu leen ci gis moo tax ñu des si lu liggéey boobu noonu. léegi ñun ñooy seen ay clients. ñun dañ am ay clients yoo xamante ni marché bii nii seen sor am nañ ci ay clients boo demee Dakar am nañ ay clients tout le monde daal am nañ ay clients yoo xamante ni dañuy ñëw fii nii di jël bagage yi di ko transporter muy dem. macha allah. Hmm. sànq bi ñuy waxtaan aussi yaa ma doon wax ne am na loo xam ne doo ko mun wax. Hmm. doo ci mën a sori. mais jën bi boo leen ko ubbiwee. Mhm. am na ay affaires yu nekk ci biir jën. yoo xamante ne moo gën a cher sax. Mhm. jën bi ci boppam. carrément waaw loolu la ñuy wax mbondoos. benn fooy la bu nga xamante ni si biir jën bi lay nekk. boo gisee comme air la ni aussi am na ci requin bi benn laaf mooy laaf yi muy féeyee noonu. lii fooy boobu noonu di jëriñ moom lay jëriñ. ci lan lañ koy utiliser ci médecine. si médecine leen koy utiliser. Hmm. ñi nga xamante ni dañuy faral di def ay opération ak yooyu noonu. bëri na lu muy lu muy produit. mais loolu leen ci jàpp lu nga xamante ni mu ngi koy def. bëri na léegi ñi nga xamante ni ñu ngi am ay opération yoo xamante ni liñ leen di dimbale yëpp ci loolu la. yow tey jii nii ci sa liggéey ñaata nit ngay employé ñooy liggéey ak yow. bëri na ñun fi ñu nekkee nii. am neen dix huit personnes yoo xamante ni. ci liggéey bi may liggéey ci loolu la ñuy liggéey. ay ndaw leen am ñoo xamante ni ay trente personnes ay mag ci liggéey boobu leen nekk te si leen jur seen i doom si leen yor seen i njaboot te bàyyiwuñu ñu ngi gëm loolu noonu kon mooy wane na daal liggéey ci gejj bi. Hmm. mën na nekk boo ko jàngee parce que tamit da nga da nga bàyyi ambulance ñëw xamoo ci woon dara. waaye gëstu nga ci tey ba am ci xam-xam macha allah. boo ci amee xam-xam. Hmm. liggéey ci sérieusement mun nga ci génn. carrément xam nga lu nekk rek il faut nga def formation bi nga mën ko transférer boo ko deful doo mën a def loolu noonu. moo tax tey nga jóg rek nga ne damay am xaalis noonu loolu dafa yomb tey boo demee ba bitim réew itam lépp loo xamante ni yaa ngi koy liggéey foofu il faut def formation nga soogay liggéey boo amul formation doo kon te ñoo njëkkee fi suñu réew li nga xamante ni xam nañ ko miin nañ ko fii nii ñuy def formation si loolu ñu koy liggéey ñu mën ci am dara même bu loolu amul lépp loo xamante ni bëgg nañ ko itam du sotti bëri na ñoo xamante ni dañuy laaj ay financement te amuñ formation te il faut balaa ngay am financement da nga war a am formation boo xamante ni day nekk ci yow bu buñ la financé nga mën a liggéey. boo ko amul de dañu la jox xaalis bi nga nga nga taal ko wala nga dugal ko foo ko war a dugal. bu boobaa kaso ngay mujjee rek te loolu moom <laughs> lañ ci àll mosal. waaye Aliou waxtaan bi neex na trop. leer na nañ il n'y de sot métier liggéey ci jën liggéey ci géej ba pare di ci génn di ci gis sa bopp mën na nekk. Ziguinchor mun nañu ne secteur yi gën a dox ci wàllu liggéey ñooy tourisme. agro-industrie, artisanat, élevage pêche te lim bi yemul fii am na yeneen domaines yu bëri yoo leen mën a gëstu soo leen demee pôle emploi pôle emploi wu Ziguinchor mi ngi nekk ci quartier Escale ci ginnaaw cathédrale bi pôle emploi wu Bignona mi ngi nekk quartier Château d'Eau ci biir batiment CDEPS de Bignona pôle emploi wu Oussouye mi ngi nekk ci quartier Etia ci biir batiment IEF képp kuy jeune ci région de Ziguinchor te bëgg tàggatu am na formation yoo mën def te du lu dikkee dara mbaamu mu dikkee lu néew mën ngeen tàggatu ci menuiserie bois électricité bâtiment gestion d'exploitation agricole mécanique automobile transformation de produits agroalimentaires ak yeneen yu bëri yoo xam ne soo leen ci suñu page Instagram wala Facebook di ngeen fa am information yi ngeen ciy soxla yépp DJ Bip may ma foofu benn son balaa ñuy ñëw jël suñuy njaatige nag bi nga xamante ne moo ñu dalal ci dëkk bi léegi léegi. yow bëgg naa am am mais dafa laaj xam-xam laaj na jàng laaj na xam bëgg naa tekki bëgg naa tekki mais soxlawul teg di loo teg di bëgguma coow coow coow bëgguma coow taluma kaw no no taluma kaw bëgguma yaay booy jooy jooy bëgguma baay booy sonn baay booy sonn waxoon naa leen au début d'émission que fii dëkku champion la ba ma leen di tuddal Jules François Bocandé tey nag ñu ñëw seet si benn championne koo xamante ne moom mooy représente fii townam ñu koy woowee Nadia Sagna Nadia na nga def. maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm ça va sant yàlla bu baax. yaa ngi yëngu ci entrepreneuriat mën nga ñu wax un peu sa liggéey. Bon, man j'évolue dans la transformation des fruits et légumes, bon, plus particulièrement insombici piment lañ nekk. Donc on fait la production et la transformation de piment. Naka nga def ba dugg ci ci loolu ça t'est venu comment? Donc, euh, après mes études, je suis revenue au Sénégal. J'étais en Turquie en espérant trouver euh, du travail, mais malheureusement, Bimonyoé, la réalité était tout autre. Avec une amie, on a décidé, vu qu'on avait étudié un peu la même chose, mais avec des spécialités un peu différentes, on a décidé de se lancer dans l'agriculture. Et avec le temps, on s'est dit pourquoi ne pas transformer ce qu'on produisait. Et c'est là qu'on s'est lancé dans la transformation. mais tamit tëbuñu rek ñu def ko quoi on a eu à faire des formations avec euh, l'ITEA l'Institut technologique alimentaire de Dakar. Pour les jeunes de Ziguinchor ñi seetaan à quoi ils peuvent s'attendre euh, si, si ils vous contactent Bon, le réseau il est là pour sensibiliser d'abord et orienter les jeunes parce que xam nga on est à Ziguinchor, il y a pas mal d'opportunités. qu'on n'exploite pas malheureusement donc le réseau il est là pour orienter les jeunes ci possibilité de formation yi am possibilité d'accompagnement yi am et la majeure partie ñun lu ñuy def dañ leen di orienter si pôle emploi yi parce que bu ñu demee ci pôle emploi ils auront toutes les informations nécessaires pour mën a soit démarrer seen activité wala développer ko en fait donc c'est un peu ça on est pour orienter les jeunes. donc voilà mais seen accompagnement moo ëpp valeur

ñu ngi lay remercier déjà pour l'accueil ak pour waxtaan bu neex bii nga ñu may tey. sama gars yi maa leen di jox dox daje ci beneen podcast mën na nekk fii rek fan yu néew nekk leen ci jàmm dong bang bang. mën na nekk mën na nekk mën na nekk.